nuyu itam seen directeur général Martiam foog naa ni man ma wax ci Martiam félicité Martiam saluer liggéeyu Martiam li tubaab di wax redondance lay nekk parce que ñëpp xam nañu man duma ko nga xam ne damay wax lu ma gëm lu ma gëm rek laay wax ñaari at maa ngi ci boppu ministère de l'urbanisme du logement et de waaye lu ma Sonaged indil ci bilan ci réalisation ci engagement ci loyauté ci liggéey gisuma direction générale boobu ma nuyu itam membre conseil d'administration yi fi nekk yëpp nuyu syndicat yi li bokkaat si wax rek ci madaan yi muy daanaka lu nga xam ne mën nañu ko wax ci syndicat nettoiement yi fi nekk yëpp bi ma recevoir madaan yi dama ko ne man de ci yéen laa xamee li Madia Diop doon wax syndicalisme à la participation responsable dégguma leen ci coow bi ma ñëwee ba tey jafe-jafe yi am na mais jafe-jafe yi da ngeen di ñëw bokk ak ñun pour ut solution yi loolu nag réew mi kenn moomu ko réew mi ñun ñii ñoo ko bokk ëllëgu réew mi ñun ñoo ko war a tabaxaloo ensemble e loolu la syndicat bi ma joxe comme engagement mais aussi comme disponibilité mais aussi comme responsabilité moo tax ma félicité syndicat yi ma fekk yëpp. dégg nañ seen i wax dégg nañ seen i jafe-jafe dinañ sumbato ak ñoom ak director générale bu ak conseil d' administration ak ñun ñi ministère ak président de la république ba jafe-jafe yooyu ñu mën cee saafara liñ ci man ma nuyu suma nijaay suma xarit itam doyen Bokar Sy directeur de la BHS ñëpp xam nañu calendrier nu méttee waaye lépp la bàyyi tey ci bésu ajjuma ñëw bokk ak ñu bés bi accompagner leen poser act bu am importance mooy ku ci nekk ci ñi nga xam ne jox nañ leen dëkk mu ubbi leen compte ba pare dugal leen foofu vingt cinq mille francs CFA mais aussi jox ko mais joxe itam ay conseils yu nga xam ne ñun ñëpp buñ ko dégluwee buñ ko mettre en œuvre dana mën a tax ñu gën leen jàppal bi ma ñëwee fii la fois dernière ci ñuy wax ci mbirum assurance maladie ma ci félicité waat direction générale du SONAGED yéen ñëpp da ngeen wax monsieur le ministre dañoo bëgg logement ma àggale ko président de la République bu ñuy def nouvelle ville de Thiès ñuy xool fan la ñuy defee stade fan la ñuy def logement fan la ñuy def cimetière national fan la ñuy def jumaa yi fan la ñuy def église fu nekk ñu placé ko ba pare président mu ne des na benn ma ne ko ban mu ne les les travailleurs du nettoiement masse mu may remercier waaye du du man moom ma remerciement yàlla rek moo tax may wax président ci boppam moo ne defal leen ma cinq hectares pour les agents du nettoiement dama bëgg zone d'aménagement concertée yu ministère urbanisme am ci Sénégal yëpp ci Sénégal yëpp laa wax zone d'aménagement concertée muy li ñuy wax ZAC muy ñu logé ko ci ministère urbanisme mu ne ma monsieur le ministre jox naa la instruction fépp fu ZAC am ci Sénégal jël au moins trois hectares nga jox ko les agents du nettoiement. loolu moo nekkoon surprise bi ma dencaloon maas parce que cinq yi rek laa ko bi ma ko président waxee la semaine dernière fépp fu ZAC am ci Sénégal dinañ fa génne trois hectares. alors mais i faut que ñu organiser ko ab réew buñ ci nekkee dañuy waxante dëgg bookar wax na leen mën nañ jox ay parcelles mais am na ñu nga xam ne ay ndaw ku ndaa ñii ay séeréer dañ leen koy jox tey suba ñu jaay ko parce que soxla tey bi nëbb na soxlay ëllëg téye leen kër yooyu ngeen tabax ko danañu contrôler ba nga xam ne kenn du ko jaay parce que day am accompagnement parce que li ñu bëgg fépp ci Sénégal mu am cité des net des des agents du nettoiement fépp Sénégal mais loolu tamit dafay ànd ak dëggu ci li ngeen nekk. waxoon naa leen ko bu ñuy lancé te yu ndaw yi man leen ku xeebul lu yor yàlla barkel ko nit ki li ngay fayee ko bu fekkee ni si sa ñàkk la te mu jub bu fekkee ni dañ koo jox ak xam te li nga yor nga bokk sa njaboot wallaahi dana barke gis nga fii kuy fayee ku milliard kuy fayee ku milliard ay bor topp ko ci ay banque billaay ba bu génnee àddina njabootam nekk ci fitina yéen seen seen quatre-vingt mille ak seen quatre-vingt-dix mille su ngeen ko jàppee ni mu ko war a ngeen ko war a jàppee jaamu ci yàlla jaamu ci seen soxla jaamu ci seen njaboot da ngeen gis barke ba teg ci bët man li may wax taala mi xam ne ci dara damay wax man agent de nettoiement yi c'est la plus grande fierté que j'ai en tant que ministre macha allah parce man dama juddu ci ndóol xam luy ndóol nit ñi bu ñu wax Sénégal di wax peuple sénégalais man kenn gënu maa xam le peuple sénégalais parce ci laa juddu suma premier salaire c'est un salaire de quatre-vingt-cinq mille deux cents francs CFA. déggal lii. ma mon premier recrutement j'ai été recruté sur la base du brevet d'études mais au bout de douze ans nekk naa administrateur civil. nekk au sommet de la pyramide de la mais loolu lu ko indi. muñ ak doylu muñ ak doylu su ngeen muñee ngeen doylu ngeen am fierté ci liggéey bi ngeen def yàlla dina leen ci defal fierté euh, sutura parce que yéen bu et loolu ma leen wax ni maas xam na ko président nee na ma chaque suba su ma yeewoo di dem suma bureau li may ëpp sama satisfaction mooy ma ma romb agent wu UCG boobu UCG la woon mu ne ma Rome instant UCG ñuy liggéey avec fierté portant leur tenue et amul ci benn complexe. kon su neen amee la plus haute autorité de ce pays am ti yéen confiance am ci yéen considération ubbi leen bu tuumee nii li des ni rek yéen a koy liggéey mooy seen coopérative boobu tey bookar conseil leen ko ñu tabax ñu def ko lépp li nga xam ne ministère de l'urbanisme danañ war leen accompagner danaa leen accompagner incha allah ñu accompagner leen ba nga xam ni. li ñuy commencé nii ku ci nekk teg ci bët dama leen waxoon ni mënuma leen dig dara parce que ministre dañ laa tele rek lépp lu ma fi def mën ko di ànd ak yéen di ko mën maa ngi ko jëlee ci ñaari mbir confiance ak jàppale président de la République su ma amee confiance ak jàppale président de la République yéen a tax su ngeen nekkuloon ci naaj bi di liggéey bu dëgg bëccëg président du ma du ma jox confiance bi ma jox yéen a koy liggéey di ko ñàkk mais daf mel ni équipe de football rek dana am toujours kuy sol brassaaru capitaine bi bu doon am xam ne bu jëlee coupe bi ñu jox ko coupe bi man nañ ko jox mais yéen a football match bi yéen ak seen i responsable agent wu UCG yëpp comme membre du conseil d'administration ak président conseil d'administration mais surtout et principalement parce que vous avez un manager de temps moderne muy Mass Thiam Mass Thiam aura été l'un des plus beaux marqueurs de ce que j'ai en termes de management humain, management administratif et management technique d'une société nationale. tàccu leen waaye. ma bëgg esprit boobu mu nekk fii ci Sonaged syndicat yi di ko doxal yéen personnel bi ngeen di koy doxal conseil d'administration bi ngeen koy doxal ñëpp naw leen ci na ngeen des ci loolu. lii loolu moo indi seen résultats yi ngeen am tey déggoo bu am ci SONAGED wax naa ko depuis deux ans maa ngi à la tête ministère musuma jot syndicaliste bu ñëw suma bureau joytu ci marché Thiam musuma jot benn agent bu nekk UCG ou SONAGED ñëw suma bureau joytu ci marché Thiam li may jot toujours mooy monsieur le ministre jàppaleel marché Thiam ma liggéey bi gën a rafet loolu nag esprit boobu. ngeen jàppandoo ba liggéey lii président ñu transformé UCG def ko société nationale nommé conseil d' administration nommé président du conseil d' administration esprit boobu na ngeen ko préserver téye ko ba li nga xam ni li ngeen ci gis tey ngeen gis li ko raw ëllëg te direction générale bi mënul def dara te conseil d' bi jàppale ko conseil d' administration yi tamit ma félicité remercier su ma rakk su ma xarit Momar Talla Cissé président wóolu ko. pour mu toy toogal ko fii di ko saytul di ko représenté ci li nga xam ne mooy intérêt de la puissance publique moo koy félicité ci teewaayam gërëm ñëpp sant ñëpp dama leen wax toujours mais ba tey maas revendication la bi may def tous les jours mais boobu revendication rek la honoré wu dama ko ne maas soo may invité ci léegi ci affaire UCG mais affaire SONAGED dem bëgg tenue yi nga ma ci jox benn